asalaamaaleykum mbokk yi teel a dibéer ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci Shaaban muy weeru baraxlu di juróom-ñetteelu weer ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci gàddaa yonente bi salallaahu alayhi wa sallam dëpp fukki fan ci weeru mars ci atum ñaari ak ñaar fukk ak ñaar fukki fan juróom-ñett bokkul ci lim yi fàtte lim bu rafet la kon tey ji dibéer ji rafet na léegi ci tiratir ak wattandiku moom dibéer mooy ku ca watu wala ku ca tàggoo ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weer wu nekk deesu ca yeggale ab sëy deesu ca tukki ñaanu bis bi yow yàlla mi aji dund ji te aji des ji maa ngi sàkku xeetal ci sa yërmande yaa xayu yaa qayuumu bi raxmatika astaxiisu yaa xayu yaa qayuumu bi raxmatika astaxiisu xadiisu bis bi yonente sallallahu alayhi wa sallama nee na ku namu ci moom aw yiw dina ko dégguloo diine xadiis bi dëppoo nañu ci qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa man yuridu llahu bihi xayran yufaqihu fi diin muttafaqun alayhi waxtu julli yi suba waxtoom dana tàbbi 6h03 juróom benn waxtu yu tegal ñetti simili tesba 13h44 benn waxtu bu tegal ñeent fukki simili ak ñeent takkusaan 16h44 ñeenti waxtu yu tegal ñeent simili ak ñeent timis 19h18 juróom-ñaari waxtu yu tegal fukki simili ak juróom-ñett gee juróom-ñetti waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak juróom-ñeent